ci loo mënul ñàkk xam ci xam-xamu diine yi nga ne nii ci diine la bokk te kenn mënu ko ñàkk xam téere bu la ci dimbalee mooy bii dégg nga parce que dafa ci diine ji loo xam ni yàlla may ci kenn ngànt jullit bu ne da ko war a xam waaw moom nag yooyu lay jàngale mu commencé ko fii ne yaqulu mu ngi wax abdul wahid yàlla li ibnu achir te mooy doomu achir mu mubtadian di aji commencé bismil ilahi ci tur yàlla alqaadir mi aji attan lépp mu ne jaamu yàlla bi nga xam ne nii moo moom la ñu dàkkantale ibnu Achir ndax Achir ci ay maam la bokk mu ngi wax waaye balaa muy wax mu ngi commencé waxam ci tur yàlla mi man lépp maanaam mu ngi commencé ci bismillahi rahmaani rahim mu tes ne alhamdu cant lillaahi ñeel na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne allamanaa xamal nañu min al ulumi ci xam-xam maa la nga xam ni kallafanaa togg nañu jëf bii ci moom mu daal di sant yàlla mi nga xam ne nii moo ñu togg jëf ba pare xamal ñu ndax yàlla lim ñu sant su ko neexoon du ñu ko xamal te ku ko def nu mu mbugal la bu ko neexoon mu ne julli leen rek ñu xamal nan la ñuy jullee te ku julliwul la waaye daf ñoo xamal nan la ñuy jullee sant ñu xoor xamal ñu luñ koy defee sant ñu aj màkk xamal ñu koy defee lépp lu ñu yàlla sant rek xamal nañu ne luñ koy defee ba mu gërëm ko kon loolu war nañ ko see sant moom na sant na yàlla ci loolu تكي صلى الله عليه وسلم تدول مسل على محمد انت محمد وآله أن ينتبه وصحبه الصحابي والمقتدي أكيب كرينجو مدال جيدي شي ينتبه يعني الله خور الموت يعني نكت محمد يعني نكت نيام تموي نكو دم سوا بنو هاشم يعني نكت صحابي تموي نيا قمني دجن ينتبه صلى الله عليه وسلم تقمكم تدعي الإسلام yàlla nekk ci képp koo xam ne roy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si ñoo gëm yonent bi te di ko topp kon moom commencé na ci bisimilah rahim teg ci alhamdulilah rabbil alamin julli ci yonent bi ndax téere bi am barke bu mag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na bépp mbir mu am solo suñ ko commencé wut ci bismillahi rahmaani rahim dafay ñàkk barke beneen nettali mu ne bépp mbir mu am solo buñ ko commencé wut ci alhamdulilah rabbil alamin dafay ñàkk barke moom mu boole ñaar yëpp bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin andi ko ci téereem bi ngir barke yu mat ñu ne ñaari wax yi dafa contrante wala déet ñu ne déedéet boo ci commencé rek baax na boo commencé ci bisimilah rahmaani rahim barke bi dana mat boo commencé ci alhamdulilah rabbil alamin barke bi dana mat ñu ne déedéet bisimilah rahmaani rahim mooy commencement gu dara jiituwut alhamdulilah rabbil alamin mooy commencement gu dara jiitu maanaam kon da ngaa war a commencé bisimilah rahmaani rahim ba pare teg ci alhamdulilah rabbil alamin moom nag indi na ñaar ba pare julli ci yonent mi nga xam ne nii mooy jëmmi yërmande wa baadu gannaaw moo sant yàlla julli ci yonent bi salaamu ndimbal laay sàkku minallaahi mu tukkee si yàlla an majiidu bu tedd bi fii nazmi abiyaatin ci na si ay bayt tufiid yoo xam ne dana jëriñ lil ummi yi ñeel këju ndey mu ne gannaaw moo sant yàlla julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam maa ngi dimbandikoo yàlla mu tedd mi ci defar ay way yoo xam ni dana jëriñ sax koo xam ni xamu dara nga xam ne ni ko yaayam jure woon la mel comme ni ñu ko junday mooy koo xam ne ni ko yaayam jure woon la mel yàlla nee na wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a yàlla génne leen seen biir yaay xamu leen dara kon képp ku juddu danaa juddu ci réer xamoo dara bu ko defee boo màggee góorgóorlu ci ngay door a nekk borom ku màgg nag taxamoo dara dañ naan la yow pudim ndey nga maanaam ni la sa yaay juri woon nga mel moom nag bëgg naa defar téere boo xam ni ku xamul dara sax bu ko jàngee dana xam dana ko jëriñ बोलने याद लगने चीज मेरे को तेरी उम्र करे फियाकद अशारी सिपस्त इमाम अशार वफिक मालिकी अफिक इमाम मालिक वफी तरीक़त जुनैदी अफी तरीक़ा इमाम जुनैद असालिक के अली सूब से तसवुफ तेरी भी कौन कहते कायला दन भी मुआकीद पस पस मान लेंगे और एकदम सियाला लोग इमाम अशार रिश्तक नहीं इमाम अशार किसी आखिर नौ लोग जांग रहे दन का जो मोई फिक वाल जाम याला इमाम मालिक रिश्तक नुक इमाम मालिक किसी नौ लोग नौ लोग jàngalee loolu xaaj bi mooy tasawuf di wàllu tariqa kooku imaamu Junayd la ci topp na ko imaamu Junayd di gisee rek moom la koy jàngale comme que nag téere pas-pas bi la njëkk tudd maanaam aqida bi moom la njëkk jàngale balaa mu koy jàngal nag moo indil la loo xam ne nii dana tax li mu bëgg a wax ci kanam nga mën koo xam bu baax a baax muy ab commencement moo tax mu ne muqaddimatun yi aji jiitu la li kitaabil itiqaadi ñeel téere pas-pas bi mooy na tun jaaji dimbale li qaariha ñeel ku ko jàngal al muraadi ci lañ bëgg a wax lii liñ jiital la ci wàllu aqida nga xam ne ku ko dégg lépp luñ bëgg a lii lépp luñ jàngale ci kanam ci wàllu aqida rek dañ ko mën a xam waaw dégg nga bañ laa jàngal alquran dañ lay feraloo ijji ndax booy jàng saar yi nga mën a xam bu boo feral ijji booy jàng saar yi dara dégg nga aqida bi balaa a koy jàngal daf lay jàngal yi ñuy tudd ci biir aqida boobu nga xam ne bu ñu tuddee lu war fekk jàngaloon na lan mooy lu war ñu tudd lu jomm fekk jàngaloon na lan mooy lu jomm ñu tudd lu dagan fekk jàngaloon na lan mooy lu dagan su boobaa doo doo gërëm waaye bu tëbee rek lii dafa war te jàngalul lan mooy lu war mën ngaa gërëm kon loolu tax mooy di commencement bi ane wa hukumulaatu ñu àttee alaqli bi ka ju xel qadiyatun atala jala fenn bila waqfin ci lu taxaw ala aadatin ci aada aw wateen wala ci tërëyin kon àttee mooy saxalal mbir mbir wala dàqal mbir mbir loolu mooy àttee boo ne muhammadun karimun muhammad dafa tedd kon saxalal nga muhammad ak tedd boo ne arrajulu laysa kariman góor gi teddut kon dàqal nga góor gi ak tedd loolu atte lañ koy tuddee saxalal mbir mbir atte la dàqal mbir mbir atte la dégg nga atte la ñett xaaj la dafa am atte aada ak atte tëréel ak atte xel atte aada mooy loo xam ne dañoo ñëw rek fekk ko fi waaw ni ki safara dafa tàng xam nga safara saxalal nañ ko tàng kon atteel nañ ko tàng waaye loolu ci aada la dañoo ñëw rek fekk ko ku judd rek fekk safara mu tàng dégg nga loolu mooy atte aada atte tëral na nag mooy loo xam ne dañ koo tëral ñu ci shariatu yàllaa ko teral di ci atte ku njaalo coow la wala ñu jam la ba nga dee ku sàcc yi dagg sa loxo dégg nga yooyu atte tëral wala boobu loo xam ne nit ko tëral ku def dara ñu tëj la wala yu demee noonu wala ñu teg ay daan yoo xam ne ñoom xam nañ ko yooyu atte tëral la ñetteelu xaaj bi nag mooy atte xel mooy loo xam ne sa xel moo la ko jox rek nga def yow yaa xalaat daal ba gis ni nga ko war a defee dem defee ko noonu àttee xel nag moom boo xoolee sukkandikuwul ci aada sukkandikuwul ci tëralin ndax kenn tëralul ko ne ci te aada andiwul ko waaye daal moom moo xalaat ba gis nii la ko war a defee mu defee ko noonu muy xuus nag ci àttee xel parce que looloo ko tax a jóg ak taawu muqtadaawu xaaju càkkuteefam semence def nañ ko ràññee ne bi nga xasee si tàkk àttee xel moom ñaata xaaj la. mu ne yàgg a gëstu de ak yàgg a xalaat moo tax ñu xam ak teqal ñaata xaaj la waaw ndax jamono maam yi ba léegi ñu ngi xool waaye gisuñu xel di xalaat lu génn ñett yi ñu bëgg wax saa yu di xalaat rek dañuy gis ne benn si ñett yi lay xalaat kon loolu moo xamal ne ak teqal ñetti xaaj rek la wala xaaj al wujubu mooy lu war al istihaab ak lu jëmm al jawaaz ak lu dagan kon xaaji attakal yi ñett la yàgg takk rek moo ñu ko xamal ñett yooyu mooy lu war ak lu jëmm ak lu dagan nga ne ko lan mooy lu war mu ne fa waajibun lu war laa yaqbal du nangu an fa dàq bi xaal ci benn mbir wa maa la nga xam ne abaa bañ na asubuuda sax aqlan ci xel al muxaal mooy lu jëmm lu dagan lu war mooy li nga xam ni am règlement def mënul dàq mukk mënul ñàkk mukk lu war mooy loo xam ne am rek la mën a def lu jomb nag mooy loo xam ne ñàkk rek la mën a def mënul am mukk xel mënu koo nangu aussi mandargaal jaay tax lu dagan maa xadee la nangu na alam ñaari mbir yi lu dagan nag mooy li nga xam ne nangu na am nangu na ñàkk moo nekk seen diggante ñoom ñaar diggante lu war ak lu jom lu dagan moo nekk seen diggante lu war mooy la nga xam ni am rek la mën a def lu jom mooy nga xam ni ñàkk rek la mën a def lu dagan nag mooy la nga xam ni mën naa am mën naa ñàkk mu ne kullum képp ci ñoom xusim séddal nañ ko li daruri ci xam-xamu fàng wan nazari ak xam-xamu séddantal ñoom ñaar ñëpp ñoom ñett ñëpp nag bu nekk dafa am ñaari xaaj lu war am na lu loo xam ne lu ne fàng la kenn du ko ak lu war loo xam ne foo nga seetantal door xam ne dafa war lu jomb noonu lu dagan noonu lu war lu ne fàng mooy waajibu daruur yi ci kaw ku ne xam ne ci kaw rek la mën a nekk dégg nga asamaan ci kaw rek la mën a nekk waaye loolu ku ko wax doo ci xalaat sax da nga koy nangu ci changé ak lu war loo xam ni jenn xalaat doo koo xam ni ki yàlla am na yàlla am rek la mën a def mënul ñàkk mukk waaye nag buñ la waxee yàlla am na foog nga xalaat ci tegtal yi wane ne yàlla am na door ko nangu moo tax moom mu indi ay tegtal yi wane ne yàlla am na su fekkoon ne yàlla am na aajowul tegtal aajowul xalaat di ci indi benn tegtal wa am na ci téeram ne wujudu loo dalilin xaati ama yàlla ñu am na tegtal bu xóor lu jomm loo xam ne ni daruri la maanaam lu ne fàng la ni ki asamaanam ci suuf kuñ ne asamaanam ci suuf rek ngay xamut doo ci fa xalaat asamaan xam ne mun nekk suuf mukk waaw lu jomb loo xam ni nag aajo na setantal mooy comme yàlla amut mooy contraire lu war rek yàlla amut bu ñu yàlla amut kenn day xam ne loolu lu jomb la ndax yàlla am rek la mën a def mënul ñàkk am mukk dégg nga bu ñu yàlla amut danañ xam ne lu jomb la waaye nag foo ñu xalaat ci tegtal yi ñu wan ne yàlla am na ñu door a xam ne yàlla amut gi dafa jomb kon loolu aajo na xalaat boo xam ne loolu dafa jomb lu dagan nag loo xam ne nii lu ne fànn la bëri nay misaal ni ki añ jot feebaroo dara dara darul la mu ne su ma neexee lekk su ma neexee ñàkk lekk dañu xam ne ñaari bu nekk mën naa am wala nga yor dara sa kurus wala ak loo mën a yor rek su ma neexee maye ko su ma neexee ma téye ko dañu xam ne loolu mën naa am ñaari bu ne si ñàkk def dégg nga kon lu dagal loolu ñu ne sàng la kenn du ci xalaat boo ko waxee rek ñu nangu ko na lu dagan loo xam ni nag aajo la xalaat doo koo nangu nag yàlla mën naa mbugal jaamam bu koy topp jaamu yàlla bi mën naa topp ba pare dee yàlla mbugal ko kooku nag foo nga xalaat ci si sañ sañ ak yàlla xam ne yàlla amul lenn lu ko tënk doo koo mën a nangu kon lu dagan la loo xam ni mën naa mën naa ñàkk jaam bu topp yàlla yàlla mën na koo mbugal mën na ko ñàkk mbugal waaye nag faw xel bokk ci nga door ko mën a nangu kon ñoom ñett ñëpp bu nekk dañ ko séddale ci xam-xamu fàng ak xam-xamu setantal awul waajibin lu njëkk war alaa man ci ki nga xam ne kulli fa toog nañ ko def mu makkanam dinañ jàppandal min nazarin ci setantal an yaarifa mooy mu xam allah yàlla wa rasul ak yonent yi bi sifaati ci melokaan yi min ma ci melokaan yi nga xam ne nasa ba samp na al ayaat yi tegtal ci moom li njëkk war ci mukallaf parce que setantal war ko mën a nangu mooy mu xam yàlla yonent yi ku ne xam na ne yàlla jiitu ci jaam bi ci jaam bi kon jaam bi yàlla la war a njëkk a xam yonent yi ñoom la yàlla yebal ci ñun kon war nañoo xam yonent yooyu ñoo ñaar waaye nan la ñu xamee yàlla ak yonent yi mooy xam seen melokaan yi war ci ñoom ak melokaan yi jomm ci ñoom ak melokaan yi dagan ci ñoom loolu la namm ci bistifaat waaye nag melokaan yi nga xam ne nii am na wéeruwaay ci alquran ak ci sunna mënoo tëb rek talaa sa melokaan ne melokaan yàlla la déedéet kenn du ko nangu bépp melokaan booy saxalal yàlla wala nga di ko dàqal yàlla dafa am wéeruwaay woo sukkandiku mooy alquran ak sunna loolu namm ci melokaan yi nga xam ne lay yi samp na ci maanaam ñëw na ci alquran wala ci sunna wa kullu taklifin bépp bépp togg jëf bi sartinaa tey nekk na sartaay am xel maal buloo ànd ak jot baax kum togg jëf mooy koo xam ne bu defee bakkaar moom lañ koy bindal bu defee tiyaab moom lañ koy bindal nan la ñu xamee nit ki toog nañ ko jëf mooy mu am xel wala mu jot baax ñaari daal bu ko dajalee rek mu tollat la lu war ay waajuram moo ñoo ko war muy am xel ak jot baax nan la ñu xamee nit ki jot na baax bi dem ci gis dee su regal bu dee jigéen aw xam leen wala ëmb bu dee jigéen ñaaroo jigéen rek koy def aw bi man niin wala ci génne man niyu muy góor ak jigéen aw bin baati chan wala sax karaw karaw naq karaw poktaan karaw sikkin karaw sikkin ne loolu ngay jigóo jigéen di gis waaw waaye yeneen yi góor ji jigéen a si yam aw bi samaani acharatin wala ci fukk ak juróom ñett xawlan ci at zahar yu feeñ wala mu am dix-huit ans kon benn ci juróom yi ku ko gis boo ko boolee amutal rek wala gis deret regal wala génne mani wala sax taaw wala am dix-huit ans yu mat min qawaayidi li mooy téere bu lay jàngal ndeyi ponk islaam yi wa man tawat ak la làqu na min al aqaayidi ci pas-pas ponk islaam yi juróom lañ waaye dafa am li nga xam ne mooy seen moom mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullaah kon laa ilaaha illallaah muhammadan rasulullaah mooy cosaanu ponk ci lislaam yi nga xam ne juróom lañ ndax boo ko waxut rek leneen loo def si ponk yi du baax te du wér kon laa ilaaha illallaah muhammadan rasulullaah la lay jàngal li la but ci biiram ci ay mbir yu ñu war a gëm loolu lay jàngale laa ilaaha illallaah yi ñu ci war a gëm tam la but ci biir yooyu ay jàngale mais yajibu dana wujudu xam xam dafa wat ci yàlla yàlla mënu ñàkk mukk lu war waxoon nañ ne mooy loo xam ni am ak na maa def wal ko dem ak njëkk yàlla dafa ba mu fay nekk leneen nekk foon moom rek moo nekkoon kazaalika mu albaqaaw def dafa wat ci yàlla yàlla du fi jógee ba mukk lu dul yàlla nag dana fi jógee waaye والغنى عبدالله المدلق بيزال عمو مثلنا يلا دفو دويلو وليس لب ظلمون إن الله غني عن العالمين يلا دفو دويلو وليس من نفسه من نفسه ما يوزي الله كن صغور برب منك ولا جمال أمي لنا صغلو لبوك تيمام صغلو درس أمام آه، فا وليس لب waxul fu ak wuteem gi xalqi yi ñeel mbindeef yi bilaa misaal ci lu benn misaal yàlla dafa wuteeg mbindeef yi wutee goo xam ne am benn misaal ndax mbindeef yi ñu ngi ci doyam manqué yàlla mu ngi ci doyam mat xam nga ne ñaar yooyu bokkuñ waxdatu zaat ak wet ci jëmm yàlla dafa wet ci jëmmam wasfil ak wet ci melo wal fi'aal ak wet ci jëf wet melo yàlla la lii nag bo ci lañ ci lañ gënaal ku juróom yi nga xam na nii boroom xam-xam yi d'accord ni dafa jëmm ci yàlla mooy yàlla dafa wékkital moom ittisaalan wan fisaalan maanaam jëmm yàlla ji melut ni jëmmi doomu aadama xam ay xaaj-xaaj loolu mooy da wét ci jëmmu ittisaalan ci jóg melut ni jëmmi doomu aadama xam ay xam ay xaaj-xaaj déedéet waaye melut ni bant it melut ni xaarif laysa kamislihi shay'un dara melul ni yàlla jëmm yàlla ji bu ko jéem a misaaleeg dara melul ni jëmmi doomu aadama am ay cër waaye melul ni bant melul ni xaalis kon nu mel neen laysa kamislihi shay'un dara melul ni yàlla waaye it yàlla dafa wér ci jëmm infisaalan ci facc maanaam amul beneen jëmm joo xam ne nii niroon naag jëmm yàlla ji amul beneen ji mel ni jëmmi yàlla ci bitti déedéet kon jëmm yàlla ji amul ay xaaj xaaj waaye amul beneen jëmm yoo mel ni jëmm yàlla ji kooku ñaar la mu wér ci melo ittisaalan ci jokk wan tisaalan ak facc yàlla dafa wér ci melo maanaam melo yàlla yi amul ci benn melo boo xam ne ñaar la buñ ne yàlla aji dégg la xamal ne dégg gi ñaari dégg buñ ne yàlla moo ñaari njëkk dafa koomal amul ñaari koomal ku am kattan la amul ñaari kattan ku coobarewu la amul ñaari coobarewu borom xam-xam la amul ñaari xam-xam mbiram yëpp bu nekk benn la waaw ci loolu nag lay ñii misaalee ñii taawilee kàtt loxo yàlla ne mooy kàttanu yàlla ñoom it war nañoo taxaw foofu ndax yàlla tuddul na boppam ñaari loxo tuddul na boppam ay loxo te ñaari kàttanu mun nekk yàlla kàttanam du benn rek la kon loxo yàlla war nañoo xoolaat beneen taawil bu dul di ko taawilee kàttanu yàlla ndax yàlla du am ñaari kàttan sa tuddoon na boom ñaari loxo tuddoon na boom ay loxo kon yàlla melokaanam yëpp bu nekk benn la waaye dafa wéet ci melo yi insitaaran ci facc maanaam ci bitti amul kenn koo xam ne am na melo yi yàlla am melo yi yàlla am amul keneen ku mel am am melo yu mel noonu yàlla dafa wéet ci jëf dégg nga insitaaran ci facc waaye bu dee moom kooku kooku nekkul parce que yàlla jëfam yi dafa bëri mënul takku yàlla dafa wéet ci jëf imtisaalan ci fakki maanaam amul kenn koo xam ni jëf yàlla yi mën nga ko def déedéet yàlla li muy def moom rek moo ko mën a def amul kenn ci bitti ku mën a def jëf yàlla yi waaye nag yàlla ci boppam mën naa jëf mbir mi ñaari yoon kon wéet ci jëf ittisaalan ci jokku kooku moom duñ ko dàqal yàlla yàlla mën naa mbugal kii mbugalaat mën naa wërsëgal wërsëgalaat kon wërsëgal mën na ko def ñaari yoon jëf yi mën na ko def ñaari yoon amaa melo yi moom melo bu nekk benn melo rek la jëmmam ji it benn jëmm rek la amul jëmm ju mel ni moom amul it ay xaaj melo it melo bu nekk benn melo la nekku ñaari melo te amul keneen ku am melo yu mel noonu jëfam it amul kenn kuy jëf jëf yu mel noonu dégg nga waaye nag moom mën naa jëf ji mbir mi ñaari yoon loolu mën naa nekk kon al ko moom mu xam sa yi nga xam ne dafa jëm ci yàlla mooy wét ci jëmm ittisaalan ci jokku ak ci facci ak wéet ci melo ittisaalan ci jokku ak ci facci ak wéet ci jëf imtisaalan ci facci waaye nag lattisaalan waxuñ ci jokku yooyu dafa mel ni leeral nañ ko itidaalan ci jokk mooy ne jëmmam ji xamut ay xaaj ci fàcc nag mooy xamut kenn ci bitti ku am ku am jëmm ji mel ni jëmm yàlla ji melo yi noonu melo bu nekk benn la moom loolu mooy jokk bi xamut ci bitti keneen ku am melo yi mel ni melo yàlla yi mooy fàcc gi jëf gi infisaalan ci fàcc mooy xamut keneen kuy jëfi jëf yàlla yi waaye nag moom si boppam moom mën naa jëf benn mbir ñaari yoon kon boobu moom jëmmut wa qudratun ak kàttan melo yàlla iraadatun ak coobarewu melo yàlla almun ak xam-xam xayaat ak dund yëpp melo yàlla samun ak dégg kalaamun ak wax basarun ak gis kattan melo yàlla coobarewu mooy lu mu bëgg mu am melo yàlla ku dul yàlla nga ne am xam melo yàlla dund melo yàlla dégg melo جيت ملا يالا دينغا يويو اي ملا يالا لين وملا يكون نكس يو ملا يكون نكس يو فوما من الملو قدرت نتاتم كن نكس يو فوما يسود الله قادر اجاتن شوبره يكون نكس يو فوما يسود الله مريد اجي شوبره علم قنقم كم نكس يو فوما يسود الله عالم اجي قم حياة كم نكس يو دن فوما يسود الله حي اجي دنو dégg ku nekk si yow muy sàmm foo ñu tuddee samiyoon aji dégg kalaam ku nekk si yow muy wax foo ñu tuddee mutakallim basar di gis ku nekk si yow foo ñu tuddee basiirun aji gis مودلنا هي واجبات الورث يلا في بقول ينافك ملك الله الوجود والقدم والبقاء والغنى وخلفون خلقي ووحدة ذاتي واسم وفعل ويبين له وقدرة إرادة علم حياة سم كرام بصر ميترك أجل النار مليب مقادر مريد عالم حي سميع متكلم بصير بقول ينافك ملك الله نوات يلا mais ñaar fukki melokaan yi seen safaan moo jomb ci yàlla moo tax weestaxil dana jomb ci yàlla dindu haadi sifaat safaan yi melo al adamu mooy ñàkk al xuduus ak soxu zaali lil xaadisaati ñeel la way sos yi dafa jomb ci yàlla safaan yi war ci moom yi war ci yàlla seen contraire moo jomb ci yàlla te mooy ñàkk ñàkk mooy safaan ab xam dafa jomb ci yàlla sosu mooy safaan ak njëkk lu fi njëkku rek daa am foo daa am foo commencé te lu am fu mu commencé dafa sosu kon sosu dafa jong si yàlla mooy safaana njëkk ñàkk ab sosu nag mbindeef yi lay dal moo tax mu ne gaa lii xaadisaat ñeen la way sosu yi mbindeef yi ñooy ñàkk di sosu waaye yàlla moom du ñàkk du sosu waaw wala nga ne boobu melokaan yi jomb si yàlla mbindeef yi lay dal waaye du dal yàlla kazaalika noonu alfanaa jeex mooy safaanam des dana dal mbindeef waaye du dal yàlla wala iftixaar ak xaajoo moom benn imaan lañ mooy safaanam ñàkk koo mën soxla dara dana dal mbindeef waaye du dal yàlla mbindeef bu nekk rek am na mu soxla benn nga soxla loo lekk wala loo naan wala loo sol wala foo tëdd wala yu demee noonu waaye yàlla soxlawul dara moom soxlawul barab soxlawul jamono soxlawul lu lekk soxlawul lu naan moom mooy joxe kon aajo dafa jomb ci yàlla mooy safaan ak koomal dana dal mbindeef waaye du dal yàlla waaye ñu màcce la ak ñu màcce mbindeef yi yàlla yem ak mbindeef yi mooy safaan ak wuuteeg mbindeef yi dafa jomb ci moom su boobaa lay dal mel ne ko dal kon waaw wala fil waxda ak dàq ak kenn yàlla ñàkk wéet ci jëmmam wala ci melam wala ci mu xam te ñu wax léegi ne la jommut ci yàlla loolu loolu dafa jomm dégg nga yàlla ñàkk wéet ci jëmmam dégg nga wala ci melam wala ci jëfam dafa dafa jëmm maanaam kon alxumumul xamsa daal lañ wax ne dafa jëmm ci yàlla wala fi wax daal dàq kenn ki dégg nga ajjun ak lottu dafa jëmm ci yàlla lottu dafa jëmm ci yàlla karaatul ak cibeel cibeel mooy bëgg dara mooy bañ dara mu am dara xew te neexul la loolu mooy cibeel ku dul yàlla léeg-léeg dara xew te dara neex waaye yàlla moom lépp lu xew rek dafa fekk loolu coobaram jiit na ci maanaam moo ko bëgg. wa jaaru ak réer dafa jomm si yàlla wa mamaat ak dee dafa jomm si yàlla wa samamun ak tëx dafa jomm si yàlla wa bakamun ak nduu dafa jomm si yàlla aman ak gumba sumaat ak mag si da ko mottale way waaye boo xoolee yi fukki melal ak nga teg si juróom-ñaar yi ñu tegoon mooy aajisul lott ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee dafa jom ñu koy mel la yàlla karaatun ci biir ku mu si yow foofu ñu tuddee la kaarihun aji sib jom si yàlla wa jaalu réer ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee la jaahilun aji réer dafa jom si yàlla mamaat dee ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee la mayitun aji dee dafa jom si yàlla wasamun ak e ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee la asamun aji tax dafa si yàlla bakamun lu ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee la abkam aji lu dafa si yàlla aman gumba ku mu nekk si yow foofu ñu tuddee la ama aji gumba loolu yàlla kon boo xoolee ñaar fukki melokaan la su maat noppi nag man ne da ko rek wala boo nga ne daal yàlla bépp melokaan boo xam ne askan nañ ko rek du dem ci moom bokkut ak melokaanu muy def nga xam ne tey lay am ñëw suba du ñëw yàlla buñ ne day wax jamono boo dem da ngay fekk wax buñ ne borom xam-xam la jamono bu nekk da fekk mu xam waaw melokaan yàlla yi nekkul luy ñëw ko dem dafa nekk melokaan yu sax ci jëmm yàlla ji dégg waaye boo xoolee noppi mooy safaanab wax hmm? te wa boo xoolee lu it mooy safaanab wax kon def ñaari safaan ñaari yu benn la dégg ملكا هي يجوم تعالى مو يعرف كي العدم والحدوث الفناء والافتقار أن يماثل النفي الوحدة أجعجز كراهة جهل ممات ثوم بكم عمل أجعجز كاره جاهل ميت أسم أسم أبكم أعمى boo paree ñaar fukki mën a tànn yajuusu dana dagan fi xaq yi ci xaq yàlla yi fi'lul mumkinaat yi jëf mbindeef yi bi asriha ci mboolem seen wa tarkuha ak bàyyi mbindeef yi sanaa demaat ci ñàkk mbindeef mooy lu dul yàlla lépp lu yàlla dafay dagan ci yàlla mu amal ko wala mu ñàkkal ko lu dul rek yàlla lay neex mu am wala mu ñàkk kon lépp lu dul yàlla mu gis ko mu am xamal ne coobare yàlla waaye bu ñàkkee coobare yàlla yàlla dara warul ko bu koy gars yi di wax maanaam mooy dara warul ko pour mu amal ko amul len loo xam ne dafa yàlla mu amal ko wala mu ñàkk ko amal déedéet daf koy neex rek mu amal dara wala mu ñàkk ko amal waaw mais war gi ñu wax ne moo war yàlla mooy melokaan yi nga xam ne moom mënu ñàkk si yàlla war ak ñàkk mënu ñàkk bokkut ak war mu def ko dara warul ci moom mu amal ko. wala mu ñàkkal ko waaye nag xam na melokaan yoo xam ne moom mënul ñàkk ci moom ndax loolu mooy ak mat wujudu am ak yàlla gi loo ñeel na ko dalilum tegtal xaatoon bu dog xaajatu kulli muhdisin te mooy aajo lépp lu soxlu listaani ñeen aji sos ko yàlla ku am la melokaan yi wax ci yàlla moom lay lay lan mooy wan ne yàlla am na mooy lépp lu am rek am na ku ko defar mosu ngay gis lu defar boppam waaw kan moo defar asamaan ku defar suuf ku defar doomu aadama mën nañu bii doomu aadama di juddoo ku ko defar ndax ba mu am borom yëg na ko la nekk ci biiru jigéen mën a changé mën nañu boobu def ko lumbu deret def ba dem def ko suuf def ko nit ki nga xam ne yaa am nopp ki bët gi lépp mbir mu rafet boobu ku ko def ci def loolu mooy yàlla amut kenn ku mën a wax ne bàyyi ma ko def wala maama ma ko def waaw ndax kon am na ku bind maamam boobu kan la yàlla waaw ba nga xamee lépp lu am na ku ko defar loolu mooy ñu xamal ne ki defar kaw na bii defar mbindeef yi mooy yàlla law xadasat bu sosoon li nafsihaa ñeel boppam al akwaaru mbindeef yi lajtamaa kon dana jaxasoo attasaawi yemoo waru jaan ak lënkaloo wa zaatil yi mu xaalu lu jomb la mu mel ni dafa am benn waaye bu ne ko mbindeef yi ñoo sos seen bopp yàlla sosu leen muy dàq loolu mais bu fekkoon ne mbindeef yi ñoo sos seen bopp konoon yemoo ak lënkaloo da leen jaxasoo ba kenn du leen xam yemoo mooy ñaari yem képp lënkaloo mooy benn lépp doon a maanaam ndax mbindeef yi dina ni lay wi ci kanam xam na lay wu wóor yu ne seen am ak seen ñàkk dafa yem bu fekkee seen am ak seen ñàkk dafa yem ñu gër gër am te yàlla jàpput ci wala ñu gën gën ñàkk te yàlla jàpp ci suubaa yematuñ ko yow yaa ne dañoo yem ba pare jaaral bu ko ne am gi moo ëpp doole wala ñàkk gi moo ëpp doole ndax ñaari yem benn lëm gër gër ëpp doole moroomam te beneen doole wàllu ci boo tegoon ñu tegoon ñaari balaas yëpp di kilo dañuy yem képp boo bëggee benn ëpp doole dañuy yokkal ci benn bi dara boo yekkee ci kilo bi ñaari kilo day ëpp doole bi nga xam ne kilo kon dañ ca yokk dara ñaari yem bu benn ëppee doole mooy moom foo am doole ji ci wàll mbindeef nag seen am ak seen ñàkk ñoo yem kon buñ amee doole yàlla ci wàll bu ñàkkee doole yàlla moo ci wàll waaye ñoom mënuñu gën gën amal seen bopp wala ñàkk seen bopp dégg nga loolu la bëgg wax foofu li wane nag mbindeef bi seen am ak seen ñàkk dafa dagan warut mooy lay yu leen ci ne dégg nga euh, law mumkin aw wajaba xalbal xaqaayati loolu man awjaba andi woon ko fii dana ko dara mu ne fi képp ko wax ne am rek lañ mën a def maanaam seen am dafa war ah da nga weddi sa bopp ku koy wax jamono mu toog mu weddi boppam ndax jamono boobu moom benn mu xiif te suur mbindeef la lu tax jamono boobu suur te moom mu suur loolu mbindeef la benn jamono boobu mu ñàkk te am mbindeef la lu tax jamono boobu amut wala mu am te ñàkk mi néew lu tax jamono boobu ñàkkut benn moom mu njool te moom mu gàtt njool mbindeef la lu tax jamono boobu moom gàttut képp koo xam ne lépp lu mbindeef yi dañoo war a am kon léppay amadoo yow da ngay ñàkk njool ciif suur day da ngay gàtt kon njool ciif suur ñàkk am yëpp ngay boole waaw waaye loolu ku ne xam ne lu jomb la nit ki boole yëpp loolu mun nekk comme mbindeef yi seen am war naka loolu it xelu na nit koo xam ni wurus lañ ko defaree naa am loolu lu xel xel mën na koo nangu nit koo xam ne lépp wurus la ndax gis nañ ko amut comme loolu dafa ñu war ne mbindeef yi seen am warut parce que gis nañ fi lu mën a nekk bëri lool te nekkut léeg nga wër na li mën naa nekk waaye doo ko am du nekk waaw su doon am gi la kon léppay am kon mbindeef yi seen warut waaye seen amit jommut ndax bu jommoon doo leen fi gis yaa ngi gis mbindéef ba pare ne mbindéef dañoo jomm su boobaa daa ngi bëgg la bañ a carte gi ndax li li nga ba pare boo amul boo ne nekk loolu kenn ko xamoon mënul lay tontu sa far dégg nga kon mbindéef am jommut ndax ñu ngi fi seen am warut ndax am na lu waroon am te amut te ñett rek moo fa am lu jomm ak lu war ak lu dagan kon mbindéef seen am dagan rek la mën a def maanaam a naa am mën naa ñàkk waaw te bu fekkee mën naa am. mën naa ñàkk ñaayoo ñoo yem doole mu doo gis lépp lu dagan benn gër-gër am tàmmul si jàpp wàll boo yoroon sa mbir si sa loxo xam nga ne mu des sa loxo ak mu wadd ñaare bu nekk mën naa nekk waaye bu desee sa loxo yaa si jàpp bu waddee it yaa yaa ko bàyyi ngoot waaye moom mënu gër-gër des sa loxo te jàppoo ci mënu wadd sa jàppoo ci mu ne seen am seen ñàkk yi noonu la mel bu ñu amee rek yàlla si jàpp bu ñu ñàkkee rek yàlla ci jàpp dégg nga waaye bu ñu gën gënoon am wala ñu gën gën ñàkk su boobaa seen yem ak seen ak ëppante dana mujj jaxasoo ba kenn dootu ko xamee te loolu ku ne xam la mu ngi tuddee sosog daandaar yi maatalaal bi ma ànd ak taxoo foofu dafa mel ni benn waaye def na ko mi nekk sax sosuñ ne déer mi nekk dañoo sosu li koy waree mooy taxaw gi ñuy taxaw lu sosu képp ku taxaw lu sosu rek da ngaa sos te gaar gaar yi ku ne xam ne ne lu sosu la gaar gaar mooy jëmm yi nga xam ni mooy mbir yi nga xam ne foo ñu taq ci jëmm loolu ñoo nekk seen jëmmi bopp ñu ngi feebar xam nga feebar mënoo koo gis muy jëmmi junne léegi ñu ne feebare na ne wala ñàkk mënoo koo gis ñu ne ñàkk nga ne xiif mar suur yooyu yëpp ay gaar gaar lañ foo ñu taq ci jëmm pour ñu doon leen xam دار ذلك ويقم الذي يصنعون ليجزئهم أكسبرم ديسكم كنت أنا أنرم ديسهم غير مكديكم من ديس نك bu fekkee yaa ngi ko gis muy taxaw lu sosu rek da ngay xam ne moo ñu dafa sosu moo tax mu taxaw lu sosu jaww ji leneen mu tàng leneen mu sedd kon muy taxaw gaa gaa yi nga xam ne dafa sosu loolu mooy wane ne ñoom dañoo sosu maanaam mi nekk dañoo sosu yàlla mi nga xam ne sosu wut wax naa léegi ne melokaan yàlla yi melokaan yi sax na ci moom boo dem set ko muy aji yërëm tey suba nga dem fekk ko nekkul aji yërëm déedéet yërmaande yàlla yéen bu nekk rek mu ngi si jëm yàlla ji du fa jógee mukk ndax moom sosuwut moo tax du taxaw lenn la sos oɗuso alami sosugmille fi sosugmille fi mais haɗa sin alade mum tukke sosu gargare ma entourage ma annak takko gañi takko gargare dégg nga ni nga xamee ne gargare dañoo sosu te mbindeefi dañoo takko gargare loolu moo ñëwal ne mbindeefi dañoo sosu mu ñëw si njëkk ak yàlla gi di ko lay ne loolu mu yëkk bu nekk doon alxida mu njëkk wasfuhu dina la yàlla lazim kon dana war xuduusu ak sosoom dawrul ak wëndeeloom te sosul ak càlleem xukkim waral nañ waral nañ ko su fekkoon yàlla njëkkut koroon moo war a sosu ndax lu fi so lu fi lu fi njëkk def dangaa sos koroon yi yàlla dana am dawru dawru mooy maam ay maam mu am fu ko jigee kooku am fu mu jigee ba daa yomb jëm du jeex koroon yàlla dana am càllale mooy am na jugee ci yàlla leneen jugee ci loolu leneen jugee ci loolu mais lan moo mën a wax ne ci moom moom yàlla ci moom ci yàlla la jugee ak wala boobu lu mën a wax ne moom yàlla ci moom la jugee yàlla dàq na ñaar yëpp nee na lam yëlit jugeewut ci dara déedéet lam yërit dara jógewut ci moom walam yuulat te jógewut ci dara kon dàqal na boppam dawru mooy lam yuulat jógewut ci dara dàqal na boppam tasalsul mooy lam yërit dara jógewut ci moom waaw bu doon mbindeef la nag kon dara war a jógee ci yàlla wala moom mu jógee ji dara loolu mooy dawru ak tasalsul loolu la kon euh, dana war ci yàlla xam ku ne xam ne loolu lu jomb la ci yàlla dégg nga law am kana bu jàpp noonu alfanaaw jeex lan tafaa kon mu dàq alxidamu njëkk yàlla bu fekkoon ne mën na fee jugee comme ñu xam ne njëkkut fi waaw ndax lépp loo xam ne dafay jeex rek dafa sos yàlla nag mi bind lépp xam nga ne lu bind lu ko fi lu li tax moom dara mënu ko fay jëlee mooy def fee njëkk lépp lépp moo ko amal daa amal mukk lu ko fay jëlee waaw yow boo fi njëkkoon di defar boo defar lu def mën a jëlee dégg nga kon yàlla su fekkoon ne mën na fay jógee rek ñu xam ne njëkkut am na doole ju nëbbu jum xamut doole ju moo ko fi jëlee ndax mu nekk rek doole yàlla la fi jëlee لو ما طلبوا ما سوى الخلق مني في حدوث وأصفهم إن حتى ورنا يا الله صفا كنا مؤمنين في نوايهم كون مصفهم وانا في الليلة يا الله صفوت جاهل كنا خمني موصف ليب كنا صفوت وكي كنا خمني صفوت waaw su fekkoon ne ñoom ñu ne fi ñoo yem ku doon mosasu dafay lay ne euh, dafay lay xulfuhu li xalq yàlla wuute gi ne fi dëgg la moom la lay nii loolu léegi bu waratoon wasul xilaa melog doylu la ñel yàlla istaqar kon mu aajool yàlla su doylu wuute ñu ne kon mu soxla dara waaye inna laa ganiyun an an alamina yàlla dafa doylu woon si ñun soxlawu dara dégg nga loolu mu yokkul bu nekkoon bi waajin ma kenn lama qadar kon du attan yàlla su amoon morom man du mooy sañ-sañ ju am lu ko neex mu def lu mu bëggut du am su amoon morom xam nga ne du demee noonu ndax su amoon morom léeg-léeg yàlla ji dana bëgg dundal la ji bëgg a rey ak foo ñu xuloo ci wala ñu xeex dégg nga ba benn yàlla nax morom ko te loolu ku ne xam na ne lu jëmm la day mbindeef fi di mbindeef ba mu ngi fi dégg ñu ne ñaari yàlla yaa ngi xuloo wala ñu ngay jotee waaw te su ñaari yàlla amoon rek xam nga ne loolu foo mu te ñaan yàlla sax mënul nekk ndax koo xam ni yan ci bépp barab bu doon beneen yàlla xam fan lay nekk yow romb nga barab yàlla mu ci barab ak ak la ca gannaaw nekk ci jamono ji yëpp ak la ca gannaaw jamono beneen yàlla bu doon xam fu nekk kon ñaari yàlla mënul nekk sax dañ ko wax rek ngir xam ne ñaari buur mënuñoo nekk ci benn réew ñaari buur mënuñoo nekk ci benn réew ñaari kuy duñ bokk mbalka wala wax na ko ñaari buur nekkoon ci benn réew réew mi yàqu kon ñaari yàlla mënuñ cee nekk. lalam yokun bu nekkutoon moom yàlla xayyan di dund muridan daa ji coobarewu aaliman daa ji xam wa qaadiran daa ji attan lama raay te doo gis mukk alama mindeefi malakaan yi lam ko layee mooy su nekkutoon ci yàlla ko doon du mën a bind mindeef yàlla su nekkutoon kuy dund mindeef du mën a am ndax ku dee moom ndax dara wala moom mindeef yàqu na ndax léegi kawoon bi lépp yàllaa ko téye fa subhaana alladi bi yadihi malakuutu kulli shay kon lépp ba léegi moo ko téye su de dee na kay lépp yàqu yow boo téyoon am nen booy dee nen boo dutee yàlla su fekkoon dee na mbindeef yi yàqu su ne ku sax ku mos a dund ko doon mbindeef duñ mën a am ndax ku dee mun def dara yàlla su nekkutoon ku coobare wu mbindeef duñ si am ndax ku ne xam na ne mbind mu xereñ mi jël sa temps di ko liggéey yombut waaye nekk rek mu nekk la mën a nekkee waaw. nekk rek mu nekk doomu aadama bi nga xam ni sos na ci biir yaayam ku mën a wax ne yàlla dafa dugg ci biir bi di di di defar affaire yi yàlla ndax yàlla xañ na ci biir ndax nit attan na yàlla waaw comme nu mu nit ki def ba sosu moo ne yàlla borom coobare daf na amal rek waa ji am ci biir yaayam ko ne nu mu neexee yàlla loolu ku coobare wala mbindeef yi seen ak am day wax ne yàlla ku coobare wu yàlla su nekkutoon borom xam-xam doo fa gis mbindeef yi ndax gis nañ fi borom xam-xam te ko bind jox ko xam-xam ku ne xam na ne moo gën a xam yàlla su nekkutoon ku am kattan doo fa gis mbindeef yi ndax ci biir mbindeef rek gis nañ fi ñu am kattan gis nañ fi loo xam ni doole euh, dëgg la ànd ak te ko jox doole ku ne xam ne moo ëpp doole moo yàlla wa taali li méng te mooy law yi. fii ci silxalaaya si juróom benn atte yi ñu andi baatilu neen la xatan bu doon muqaddamun lañ jiital dégg nga waxtaan yi mooy tont yi dégg nga muqaddamun lañ jiital mooy law yi idan ak tontu ba mu maase mu ñoo ci yemoo dégg nga laa bëgg wax ne law yi ak la leen méng mooy tont yi ci topp yi yëpp da ko andi pour jàngale waaye yëpp jëm ci yàlla dégg nga muqaddamu lu jiital mooy law yi dégg nga law lam yokun bu nekkutoon boo xoolee juróom-benn law la law lam yokun ak law am kana ak law maakana ak law lam yajib law lam yokun law lam yokun muy juróom-benn law law yooyu bu nekk ak tontam tontu bi mooy taay yi la ci méng yooyu yëpp la wax ne dafa joomu ci yàlla da ko indi pour jàng laa mun nekk yàlla su njëkkutoon xam nga loolu mun nekk kon mu sosu wala mu am dawr ak tasalsul loolu xam nga ne mun nekk Kalau semua orang aja, jeex xam nga loolu mun nekk yàlla mën a jeex jika nekk kon njëkkam gi Mau njëkkam gi xam nga ne mënu dàqu moo tax law yi ak tontu yi daf ko ni ngir jàngale waaye dara mënu ci am moo tax ma wataayu yi mu indi te mooy tontu yi fii ci tël xadaaya si juróom benn at yooyu ñu indi baatilu neen la xataan bu dog waaw naan gu leer nañu la mu xadamu si ko dégg wal basar ak gis wal kalaam ak wax trois mu def nañ ko sàkk bi naqari ci toxal maakamaa yi ànd ak mat ak yàlla gi dégg ak gis ak wax ay melokaan yàlla lañ mën na alxuraan tudd na ko ndax yàlla wax ne ne laa samoon basiir yàlla dafay dégg day gis wa kallama laa Moussa te kii ma yàlla waxee ne Moussa moo tax mu ne yooyu ay melokaan yoo xam ne dañ ko toxalee ci alxuraan ñu nekk melokaan yi sax ànd ak mat ak nga xam ne melokaan yi ñu jàngalee ne dafa war ci yàlla yëpp dafa ànd yàlla jamono bu nekk mu ngay dégg jamono bu nekk mu ngay gis jamono bu nekk mu ngay wax na muy waxee na muy déggee amul xaraf bokkut ak suñ dégg yi bokkut ak suñ gis yi bokkut ak wax yi ndax yàlla lépp luy sosu rek jéego te ku nekk na xaraf dafa sosu dégg nga di wax ak yàlla gi du dañ ci yàlla mukk waaye yàlla xam na muy waxee moom alquran ji wax yàlla loolu ko mën a tuddee waaye ci dëgg-dëgg alquran la muy wax ak la yàlla wax benn la waaye du caaga ne alquran ji mooy dëgg-dëgg wax yàlla ji waaw mais lay waxee la muy lay wax yàlla ji di tegtal lay alquran di tegtal man su ma ñëwoon ne jaa dikk na zeydun zeydun yow nga ne nettali na ko ne nettali ne jaa dikk na zeydun zeydun ndax su ma ji ak sa bos ñoo bokku yow koy li ma wax rek moom nga wax waaye xam nga ne man ni ma ko waxee moo ko waxaatee noonu bu fekkee man mii rek sama wax keneen mënu koo waxaat rawatina wax na waaw mais nag li mu wax la muy teg tan man nga ko wax man naa wa jaa azeri yow nga ne jaa azeri waaye ku ne xam ne ne ñaari wax yi bokkul waaye nag lay ñaari wax yi tegtal benn la kon alquran bi li muy tegtal ak li wax yàlla di tegtal benn la mais duñ alquran bii mooy dëgg-dëgg wax yàlla ndax wax yàlla xajul ci ay kayit xamul ay xaraf xamul fu ñu dégg na law istaala bu jomboon mumkinun jëf mbindeef yi aw wajaba wala mu war kon aw jaba dana waral xalbal xaqaayiqi soppi dëgg-dëgg yi lusuman ci war loolu layan naa ko dafa waxoon ne mbindeef yi fekkoon na seen am dafa jomb kon da nga soppi lañ jàkkaarloo ko dëgg-dëgg yi mooy lañ ci gis réalité yi ñu gis kon da nga ko mën a soppi ndax yaa ngi gis mbindeef yi benn dañoo jomb kon kon nga fa jëlee mbindeef yi ñu door laa mën a gëm boo waxoon ne mbindeef dafa warit dana soppi dëgg-dëgg yi ndax gis nañ lu mën a nekk te nekkut te lu war mooy loo xam ne am rek la a def fexeel ne ko amandoo su waa ñu mën la doo laa mën a gëm bu fekkee jombuñ nag waruñ kon lenn lañ mën a def mooy dagan kon mbindeef ne seen ak am ak seen ak ñàkk dafa dagan loolu la nañ ko ci gannaaw su may looy saxaale bu jëppoon bu jomboon mu ngi koy jëmmi ndef yi aw dana waral xalbal xaqaayiq soppi lañ jàkkaarloog te mu dëgg-dëgg yi lu mu mën cee war aw jaba wala boog jëf mindee fi war kon aw jaba dana waral ba tey xalbal xaqaayiq soppi lañ jàkkaarloog lu mu mën cee war ndax gis nañ ci lu mën a nekk te nekkut loolu bëri na bokk nañ li ñu fi léegi mu dana war ni rasuliñe yonent yi alkiraamu yéena way tedd asirku dëggu amaanatul kóolute tabliqum seen ak jotale yaxiqu dana yeey mu génn ci li nga xam ne ni moo war ci yàlla ak la ci jom ak lu dagan mu ñëw ci lu war ci yonent yi ak lu jom ci jom ak lu dagan mooy li war ci yonent yi ñetti melokaan la mooy dëggu yonent yi tedd yi foofu moom dafa andi alkiraamu nekkul ne dafa war ci yonent yi waaye dafa daf ne bëgg wax ne ñoom tedd nañ ba pare ndax ku yàlla tànn daf la yéenoon te xam nga ne ku tedd ñetti melokaan yi moo war ci ñoom muy dëgg du ñuy wax mukk lu amut ak kóolute duñ def mukk lu leen tere duñ fecci kóolule yàlla mooy def lu leen yàlla tere duñ fecci kóolule min def mooy def noo xam ne min def santu leen ko ak jotal dafa war ci yeneen ci duñ nëbbu mukk lu leen yàlla wax nañ ko jotal min def lépp lu leen yàlla wax wax leen ko rek danañ ko wax jëlee dañ ci dagg seen baat am nañu si ko ak xel yonentu du nekkul du nekkul mukk def boo xam ne comme que jot naq ba dugal ko ci loo ko loo ko war a dugal mu xaaral lu jëm si yonent alkasi bu mooy fen wala man xiiw ak def luñ leen tere kaadamu tabliq ni ki ñàkk jotal yaa zakki yow aji ñëw ji lu jëm si yonent yi mooy safaanu ñetti melokaan yi fen mooy safaanu dëgg def luñ leen tere mooy safaanu korite yàlla wóolu la dénk la ne la defal nangam nga dem def lu loo xam ne yàlla digalul la ko war nga ko wala mun def wóolu la nga def loo xam ne wuti naa lam la wóor woon ba léegi def nga lu ñu la tere rek kon def luñ tere mooy sabaanu kóor yi si dafa jëm si yàlla nit ki ñàkk jotal ñàkk jotal mooy nëbbu yonent yàlla na ko waxal lii lii mu nëbbu ko loolu dafa jëm waaw ñeenteel ma nag mooy jàpp xel ba ku jot ndax dégg nga al balaadatu jàpp xel dafa jëm si yonent yi alfakaanu su nag mooy xel moom dafa war si ñoom yooyu ëpp xel ci kenn ci jamono gën a fasaa lambañ kenn mënu leen nax ba dugal leen ci loo xam ne dafay yàq seen woote يجوز دان دغان في حق شناق كل عرب بيب غار غار ليس لكن مؤديا داجي بيجي لنقص نيل وانيك كلمه نيك فيبر لب لو خامني bu andi ak suufe ci yonent yi ak wàññeeku daraja rek dagan na si ñoom bépp gaar gaar ñu dal mi mën dal mi yonent yi ni feebar tayib gis nañ leen teel Muhammad sallallahu alayhi wa ba xam kon xam dagan na ci moom feebar dagan na ci moom gis nañ ko mu ñàkk kon ñàkk dagan na ci moom ci gis nañ Suleymaan nekk buur gis nañ Daawuda am kon ñoom am dagan na ci ñoom nekk dagan na ci ñoom dégg nga gis nañ ñuy liggéey dégg nga kon liggéey dagan na ci yonent commerçant commerce kon liggéey daal dagan na ci maanaam daal lépp loo xam ne rek dana dal mbindeef muy ñàkk xiif jaaxle kontaan mer dégg nga jaaxle yooyu yëpp dagan na ci ñoom feebar wér mer kontaan jaaxle ak gindeeku xiif ak mar ñàkk ak am yëpp dagan ci ñoom ndax loolu lépp gis nañ ko ci yonent yi dégg ba mu def nag loo xam ne da leen indil ak wàññeeku daraja li ki gumba benn yonent mosul gumba te yónneeguñ ko waaw ñi nga xam ne dañoo gumba woon ni ki Yaquba gannaaw bi ñu ko yónnee la gumba te wér na dégg nga ak ngaana du leen dal mukk ndax mooy wàññi seen daraja dégg nga yi nga xam ne nii am na yoo xam ne feebar yoo xam ne bu la dalee dañuy sib na jiite loolu du dal yonent mukk ñu ngi am ay góom yoo xam ni nit ñi dañ ci tax ñu jiitu leen loolu du doon yonent mukk bu doon jamono tey bii mooy choléra Ebola feebar yi nga xam ne comme dal ñëpp xel la du dal mukk yonent may yi nga xam ni nag bu la yéegee ci daraja yooyu maanaam du la suufeel yooyu moom mën naa dal yonent loolu yekkoon bu nekkutoon taarixina di way dëggu ne la dim kon dana war an yëg si ba mu wax lu dul loolu alilaahu yàlla fii tasdiqim ci dëggal gi mu leen dëggal muy lay nag malakaan yi war ci yonent ne yonent yi bu ñu dëgguwutoon kon yàlla wax lu amut ndax yàllaa leen dëggal bu fekkee dama ne kii lu mu wax dëgg la kooku wax loo xam ni du dëgg ku wax lu amut xanaa man te ku ne xam na ne yàlla dafa jëmm ci moom muy wax lu li ni ni nga xam ne dafa jëmm ci yonent yi ñuy wax lu amut mu yàlla dëgg la yonent yi nag mu ne is ngir mojisaatun seeni kàrteef te xawli yi mu ngi mel ni wax yàlla wa barta wax jooju wax ju wéy la sadaqa dëggal na abdan abdu bi da jaam fii kulli xabar ci bépp xibaar yonent yi kàrteef yi leen yàlla jox mooy wecc ci wax yàlla xam nga yàlla mënul wax ak ñun direct ndax attanuñ ko kon dafa am lu muy jox yonent yi rek mu remplace wax yàlla kàrteef yi leen yàlla jox ñu mën a xotti weer wi ñu mën a jël xet door ko ci géej mu nekk suuf ni ñu jàll mbëtt mu dee ñu mën koo wax mën a doxloo garab di ko sujjóotloo waaye waaye yooyu yàlla jox leen mooy wecc yàlla ne kii lu mu waxati dëgg la ndax su fekkoon ne dañuy fene yàlla ko yàlla daf leen gàccaan ndax kenn du leen gëm waaye du leen dëgëralal di leen jox loo xam day tax nit ñi gëm leen kon loolu yàlla jox leen dafay dafay fekk ne yàlla wax ne kii lu mu wax ci dëgg la ndax lii ma ko jox nii xam ngeen ne pour ngeen gëm ko moo tax waaw su fekkee yàlla wax na loolu ba pare ñoom ñu wax ne ku dëgg te loolu jomb na ci ñoom dafa mel ni yàlla wax lu amut te loolu jomb na ci yàlla. léegi tabax bu daa ko naan sab yëpp seen am ci tan aw xaalu wala ñu wurij xottim kon dana war an yokkale ba ñu jàllal bi al malhiyu lañ tere woon taatan ngir war a topp loom ñeen leen su fekkoon ne yonent yi danañ nëbb dara maanaam danañ ñàkk jotal wala boog ñuy xeer mooy safaanu polise ñàkk jotal di safaanu jotal su fekkoon loolu mën naa am kon lañ tere woon dañ ko soppi def ko luñ luñ digle ndax yonentu dañ ko war a topp xam nga yonentu yàllaa ne kii sama ndawal fu mu jëm rek foofu la lu mu def def leen man itia rasula faqad ataa Allah ku topp yonent ci topp na yàlla waaw bu yàlla waxee loolu ba pare ñoom ñu jàll ko def loo xam ne nii baaxut su boobaa ñëpp dañoo war def lu baaxul loolu ndax dañoo war a sopp kon lu baaxul loolu dafa ne yàllaa ko digloon ba pare mu ji def ko lu baax yàllaa ko terewoon ba pare mu ji def ko lu baax digle ko yoon tu bu dagan ndax ñoom lay ci dagan buñ defee dara rek loolu dagan kon xool dagan mais amul kenn ku mos a lay ko si ab bi yonent benn yonent mosul woor benn yonent mosul nëbbu dara dégg nga waaw loolu la bëgg wax kon yonent yi bu ñu nëbboon wala ñu wax kon loolu ñu tere woon dañuy mujj def ko lu baax ndax ñun dañ leen war a topp lépp lu ñu def ak ñoom ñun dañ leen see war a topp parce lu baax la ñu war a topp dégg nga waaye su boobaa it mën ngaa wax ne ba léegi yàlla moo wax lu nekkul noonu. ndax moo ne kii sama jaam la lu ñu def noonu la ku ko topp mën nga topp kon lu naa ko bu jàll fi ko def lu yàlla gërëmut kon day mel ni yàlla wax lu amut te loolu ku nga xam ne dafa jom waaw te noonu lay woo sax moo gënoon moom jëkk fii jawaasul aaraan yi daga na gaal gaale alayhim ci yonent yi hujjatu ak leeram waqwa mooy ak tabbi mbiim ñoom hikmatu ak njëriñ nag te mooy miis gaar gaar yi wax ne dafa dagan ci yonent yi lii lay yi xew gi ñu xewoon ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko mu feebar nga xam ne feebar dafa man a lu mën a am la gis nañ ko mu meree ay nit juróom fukki fan waxatu ñoom sax nga xam ne kon yonent yi dañuy mer dégg nga gis nañ ko mu kontaan nga xam ne yonent yi sallallahu alayhi wa dañuy dañuy kontaan dégg nga gis nañ ko mu ñàkk nga xam ne yonent yi dañuy dañuy ñàkk gis nañ ko mu xare nga xam ne loolu dañ koy def kon lépp loo xam ne nit dañ koy def rek yonent yi da koy def indi na ko loolu gis nañ Souleymane mu nekk buur nga xam ne dañuy nekk buur waaw gis nañ yonent bi commerce nga xam ne ñoom jaay ak jënd dagal na si ñoom maanaam li nga xam ne dafay dal mbindeef yi mbindeef dañ koy def ñoom dañ koy def parce que ñoom mbindeef lañ ko ñëpp mais lu manqué daal du leen dal lay bi nag mooy gis wedd gis bokkut ci lan mooy njëriñ yàlla yu leen teg gaar-gaar yooyu mooy ñu mën a miis bu yonent feebaree yow buñ la loree nga gis ne loroon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga mën a muñ ndax xam ne moom moo la gën te yàlla tegoon na ko lu gën a métti lim la teg kon mën a miis mën a fàtte ñu la dal ngir roy ci yonent yi moo tax yàlla teg leen gaar-gaar yooyu waaye yàlla teg na leen gaar-gaar yooyu ngir ñun ñu mën a xam ni ñuy defee yonent bi bu jaayee danañ xam ñun du ñuy jaay nan la ñuy jaayee ndax moom mooy jàngal li ñuy jaayee waaw bu defee dara ñun ñun ñu ñëw gannaawam. wala ñu fekk jamonoom dañuy jéem a roy ci moom waaw kon gargaar yi dal leen ñaari njëriñ la am benn bi mooy fàtte yu métti yi ndax daloon na leen benn bi it mooy xam suñuy mbir nan lañ koy doxalee ak lu ñuy dal lañ ciy réagir ndax ñoom noonu lañ ko defee wa qawl laa ilaha illa wax laa ilaha illa muhammadun muhammad arsalu yónni na ko ilaahu yàlla yajmaw dana dajale kulla haadihi almaani bépp yi maana lisa lii moo tax kaana nekk na alaamatal imaani di mën a gëm yàlla boo waxee laa ilaha illa muhammadu rasulullah boo waxee baat boobu mu ngi mel ni la ñu waxoon ci commencement bi yajibu lillahi ba ci tasallin hikmatu lépp dugalaa nga ko lépp wax nga ko nangu nga ko boo waxee laa ilaaha illallaah lépp lu ñu waxoon ne moo war ci yàlla ak lu jomb ci yàlla ak lu dagan ci yàlla gëm nga ko boo waxee Muhammadu Rasulullah lépp lu war ci yonent yi ak lu jomb ci yonent yi ak lu dagan ci yonent yi gëm nga ko moo tax man laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah dafay dajale maanaa yi ñu jàngale lépp ci gannaaw loolu moo tax ñu tuddee ko mandargaay gëm yàlla ndax mooy drapeau bi ku ko wax rek ñu jàpp ne gëm nga yàlla waaye moom afdal wujuuhi zikri moo gën ci anam zikari bépp zikar bu nit di mën a def laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ko moo ko gën ndax yonent wax na ne afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah man ak yonent yi ma jiitu li mos li gën ci liñ mos a wax mooy laa ilaha illallah comme mos ñoo wax lu gën laa ilaha illallah loolu dafay wane ne laa ilaha illallah moo gën ci anamu zikar yi ndax yaakaar naa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li gën yëpp yàlla jox na ko waaw fas la nga soxla bi ci laa ilaha illallah al umra sa biir ak dund tamus kon dana texe bi zuxri ci ndaxanteef ndaxanteef mooy yiwu bëri wuñ la dencal kon daal yow sa dund bi na nga ko soxlaa la ilaha illallah muhammadu rasulullah jël wax loolu si dund rek su boobaa da nga am yiwu bëri wala yàlla dem ci dem ak xiyaamati boo xam ne boo dajee ak moom da nga ci texee fasl yar fatale la wa taatul jawaar yi toppag cër yi aljami mbooleem seen xawlan ci wax wa fanaan ak ci jëf foofu moom alislaamu mooy lislaam rafi ba yëkkatiku bu la laajee lan mooy lislaam ne ko cër yëpp topp yàlla ci wax ak jëf loolu lislaam piir loolu war si béykat boobu xawaayid islam yi fonk islam yi xam suñ juróom lañu waajibaat yu war waaye ñoom ak shahadataani mooy ñaari baat seede yi chartul baqiyaati te mooy charta yi des summa salaat topp julli wa zakaat ak jox asaka fil xitaani ci gëdd gi wa sawm ak xoor wala xaj ak aj ala man istataa ci képp ko attan boo xoolee téye bi daanaka l'islam lan lay jàngale fonk l'islam yi ndax ponk lislaam yi juróom lañ bi ci njëkk mooy laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah loolu rek la doon jàngale ci commencement tey ba fii waaw gannaaw loolu muy dana ko jàngale ci biir azaka dana ko jàngale xoor aj yëpp dana ko jàngale kon moom ponk lislaam yi parce que moom ci téere bi boo xoolee aj sax la mujjee ba pare te loolu dafay yoon ci wàllu jikko rek ponk lislaam yi juróom lañ laa ilaaha illa muhammadu mooy ñaari baat seede yi boo ko waxul yeneen yi des du baax nga teg ci julli moo ci gën a màgg azaka waaw boo xam ne ci alal jël la ci namm suuf xitaa day ay gédd yoo am naga xaram doy bi yooyu jëmoo waaye alal alal jël la ci namm alal yi alal yi war a gën a am dana ko jàngale boo ko amee ci gën a sëkk xoor ak aj ci ku mën a aj ku mënul aj mënul xoori ko xoor wàcc ko alimaan gëm yàlla jël mu mooy doog bi ilaahi ci am ak yàlla gi wal kutub ak téere yi wa rusul ak yonent yi wala laa ci ak malaaka yi maa baaxin ànd ak dekk xarub boo xam ne jege na wa qadarin ak gëm dogal kazaanaka noonu siraatun ak gëm siraat misaan ak gëm balaas yi xawdu nabi ak gëm déeb yonent bi te mooy kawsar jannatun ak gëm al gëm aljana wa niiraanun ak gëm safara gëm yàlla muy gëm juróom benn yi noonu la ko yonent jàngale jéemoon di ci kaw na ma fondé saa bi juróom yonantoo ko jàngale ci hadiisi Jibril bi dégg nga lii tamit moo indi suuf ne mooy gëm yàlla yonantoo ko jàngale ci hadiisi Jibril bi dégg nga gëm yàlla mooy mooy nga gëm ne yàlla am na lépp lu wax ci yàlla ak lu jëm ci moom lu dana ci moom gën ko gëm téere yi gëm yonent yi gëm malaaka yi gëm bis penc yi gëm dogal yeneen mu yi mu indi nii yëpp ci suuf dafay dellu ci bis penc rek xiraat xam nga ne ci bis penc la bokk waaw galaas yi peese jëfi jaam yi ci bis penc la bokk kawsar gi yonent bi nàndal xeetam wi ñi ko gëmoon ci bis penc la bokk ay janaa safara yëpp ci bis penc la dugg boo gëmee bis penc maanaam yomal xiyaamati gëmaale nga yooyu yëpp kon boo gëmee juróom benn gëm nga yàlla waa mu leex saan waaye moom yonent ko jàngale ci xadis jibril boobu la jàngale ñett yi yëpp waa mu leex saan waaye rafetal fa qaala wax na man daraaw ku nga xam sama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy naan taabu da nga allah ka annaka mu mel ni yow taraahu yaa ngi koy gis in lam takun boo nekkul taraahu di ko gis innahu nag moom yàlla yaraa ko mu ngay gis rafetal yonent nee na mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi nga ne kuy liggéeyal mbindeef rek moo fonk nga di ko mu wóor na ne yaa ngi jënoog moom su boobaa da nga rafetal liggéeyal bi yonent nee na boo yëgut foofu boo yëgut ci maqaama jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi gis yàlla nga yëg ci maqaama ne yàlla moom mu lay gis te it kuy liggéeyal mu wóor na ne mu lay gis xam nga doo caaxaane ni yaa ngi fekkee yëgoo foofu yàlla mu wóor na ne yàlla moom mu noonu la ko yonent jàngale woon mu ne wa diinu diine nag gis salaatu mooy yële ñett xul jëlal ak ko waa muraaka dem taa dëgëri say buum diine buñ ko waxee rek mooy lislaam ak iman ak ihsaan jàngal na la mooy lislaam jàngal la ponkami jàngal la iman jàngal la mooy ihsaan loolu mooy diine mooy ñetti buum yi nga xam ne moo gën a dëgër ci sa ci say buum maanaam li lay yeggale ci ngëlmaane yàlla li lay yeggale ci aljana ñett yi moo ci gën a dëgër mooy lislaam fexeel bu ci dara yàqu bu ci yàqu rek nga am problème ak iman ak ñett yi bu rafetee rek yeneen yi des yëpp mën naa rafet waaye ñett yi bu rafetut dara du mën a rafet waaw ñooy ponk lislaam ñooy ne diine ñett yi waaw bu doon diine tawaax la nga ne ñett yi ñoo ko téye buñ fa nekku rek dara du fa nekk loolu mooy wa diinu diine si salaat mooy yeneen ñett xul jëlal ak waa awraat dañ saa صلى الله على محمد صلى